min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami raashidan wa murshidan wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokki jullit yi ci jataay bi yépp maa leen di nuyu di leen siyaara di jiital di jiital ci nuyoo bi ak siyaara bi suñu kilifa yu baax yi ci jataay bi di leen jéggulu itam ci jataayoo gi ak ñoom waaye xëy na lépp dana dëppoog seen ndigal insha allah ginnaaw loolu itam nuy santar yàlla bu baax ci fekke bis bi muy ñuy fàttaliku bis bi nga xam ne ci la cheikh ahmadou bamba radiallahu anhu wa ardaahu tànnoon dëkkaale jeeg boromam subhanahu wa muy lu rëy ci lislaam di xew-xew bu am solo boo xam ni mën na ma wax ni ci murid yi nga xam ne ñoom la fi bàyyi woon bàyyee na leen ca jamono joojee naqaru xol woo xam ne dara saafaru ko lu may ba ñu delloo fa moom Serigne Moussa Ka da ko misaal ci wax ni adduna keroog mi ngi mel ni ab burmal cheikh mohammad abdallah alawi gis nga dafa wax ne walakina nii lam ulfi illaahu mayitan bi xasada al axyaawu ahla al moom laa gis muy jëmm joo xam ni bi mu demee yowmal qiyaam dem barsax adduna sépp dañoo maase ñeewaa barsax ngir gan googee ñu am ndax sëriñ Tuubaa fu mu nekk rek foofe aljana la ci ña mu nekkal Cheikh Sidiya baaba baabul Cheikh Sidiya dara wax ne maa darra ardan usidat bi jiwaarihi an laa yakuna rabiuha asqaaha suuf sumu ne rek donte tawu fa lu mu bekkoor bekkoor suuf ya ko wër yépp danañ ko ñee ngir jëm ja mooy jëmmi xéewal gu fees dell ak leeru yàlla nga xam ne ñum dendal ñoo ñee di bëgg seen xol di féex ngir dañuy nekk ci aljana bis bii nag kon bis bu rëy la bu mat di fàttaliku yu baree bare xew ci waaye ngir njëkkanteeg waxtaan waxtu wi dañ ma waxoon ne naa waxtaan ci njàngalem sëriñ bi jamono jii nu toll nit ñépp dañuy wax ne nañ dellu ci njàngalem sëñ bi kenn ku ne di ko wax war nañ cee dellu waaye na njàngale moom yi ñu war a dellu lañ ma gëstuloo mooy lan ci lu gàtt loolu nag tomb la boo xam ni tomb xam-xam la tomb am solo itam la bu mat di gëstu la bu mat di yittewoo la ndax sëriñ Tuubaa yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la wax ni moo ko digal muy jàngale dafa wax ne amarahu salla alayhi llaahu fi l aali wa saxbi wa man waalaahu bi an yuallima al muridiina wa man yaqbalu minhu nusxa min ahli zaman nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallama moo ko digal ne ko na nga jàngal murid yi nga àndal murid ci gàttal rek mooy képp koo xam ne yaa ngi suubu yoon yàlla ak foo mën a bokk ab murid nga murid yooyee nag la ko yónni bi wax ne na nga leen jàngal ak képp koo xam ne nangu na sag laabire itam nga laabire ko ngir yàlla moo tax Sëriñ Tuubaa dañul woon dinu nu laabire daana wax sax ne laabire yi ma leen di laabire lii ma leen di jàngal maa ngi koy def ànd ko xol bu bu fees dell ak cofeel ak bëgg bëgg gu ma bëgg gu ma leen bëgg ak ñeewante leen moo tax ma leen di laabire ak di leen jàngal lii ma leen di jàngal ci diine mooy li wax ne haakum nasihatan min almuhibbi wajjahaha lakum li ajli alxubbi wax na itam ne yaa ayuha alixwaanu haakum nafan bi gayri durrin jalaban wa dafan mooy lii ma leen di indil lépp njariñ la te daray lor nekku ci te itam maa ngi leen koy jox ci xol bu fees dell aku bëgg ak cofeel gu ma am ci yéen aku ñeewante njàngale moomu nag bu fekkee ne dañ ci dañ ko bëgg a gëstu jëpp ma ne am na lu ci gën a wér bindum sëriñ bi ci boppam mbir boo koy gëstu ka ko jëmmal kookee lam bindal boppam yaakaar naa loolu mooy li gën a wér ci delluwaay kon ci biir mbindum Sëriñ Tuubaa la dugg xool lan mooy njàngaleem sëñ bi ñu gëstoo nag def ci yitte la gis mooy ni sëñ Tuubaa lenn la doon jàngale mooy lislaam lislaam la doon jàngale wax na ne yaa saaili an ayi diinin yustafa inda al ilahi haaka al mustafa ayqin diina islaamuna la diinu di malaahi mooy yow mi bi mii xënte woo am diine ju wér joo jàpp xamal ne diine yi bari na waaye islaam rekk mooy diine fa yàlla moom la yàlla nangu muy diine mooy ji wér kullu man bilaahu daana turida walil jinaani abadan lan yarida mooy ku nekk ci jeneen diine ju may lislaam yàlla dina la dàq ci yërmandeem te du dugg aljana mukk gis nañu itam wax ne biatu siwal islaami bil islaami lu dul lislaam jënde naa ko islaam gis nañ itam wax ne siwaa siwa islaamihi laa yuhamadu inda al ilahi wa bihi nu jaddidu wax ne islaam rek la yàlla nangu ne mooy diine ji wér te moom laay yeesal ci lay jaare yeesal li màggat ci xoli nit ñi ak ci mbindeef yi gis nañu itam wax ne yabussu ulum ad diini xatti mujaddidan li nahji nabi bil xatti id rasmuhu afa mooy di lislaam dafa demoon ba kenn xamatu ko ma ñëw nag sama mbind mi yépp li may bind lépp jëm ci di yeesal ngirum yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam muy diine lislaam kon gàttal gi mooy Sëriñ Tuubaa li mu doon jàngale weesu lislaam waaye foofu it am na mbir mu rëy bu fi ne mooy lislaam dafa bari ay déggin xeeti islaam yu bari moo am buñ ko sañee wax tey jii ku ne xam na ne lislaam benn téere la am muy alquran sunna si yonte bi muy xadis yonte bi da koy leeral moom téere boobee waaye am na ci jullit ñi ñoo xam ni nanguwuñ sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam nanguwuñ xadis yonente bi lan lañ nangu alquran ñu leen tudde ay quraaniyuuna ñooñu kuréel la bu yàgg ca njëlbeenu islam ba léegi ñu ngi fi fi mu ne nii na xëy na am nañ doore léegi loolu nag dana kon jar nun murid ñu laaj jan islam lanu sëñ bi tànnal islaam ji yem rek ci alquran wala ju ci boole xadis yonente bi loolu sëñ bi leeral na ko ba mu leer nañ wax na ne ilallaahi bilqurani wa sunnati allati hadat nii saraftu lkulla walqalbu xaashiu wax na itam duumu ala sunnati wal ijmaai baada kitaabillahi bi ijtimaai mooy wax na itam ne banaytu taatiya bittibaai bi dikri wal xadiisi wal ijmaai mooy wax na ne man diine ji ma tànn mooy ji sukkandiku ci alquran ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa waaye foofu it beneen jafe-jafe day am mooy alquran ak sunna moom lañu bari ci jullit ñuy woote woo alquran ak sunna itam bu ñu seetloo mooy jàngale diine lislaam waaye diine lislaam jooju ñetti xaaj la xaaj bu njëkk bi mooy wàllu pas-pas ak wàllu ngëm xaaj ñaareel bi mooy yi ñuy jëf ci say cër yi ngay jëf ci say cëm cër mooy xeeti jaamu yàlla yi ak jëflante bi ak mbindeef yi xaaj ñetteel bi mooy sa diggante ak sa boroom muy wàllu ihsaan muy tasawuf Sëriñ Tuubaa xam ngeen ne ci jullit ñi am na ñoo xam ne dañoo tànn tawxiid ak fiq mooy imaan ak islaam bàyyi ihsaan muy tasawuf am na ñoo xam ne dañoo tànn tasawuf bàyyi tawxiid am na ñoo xam ne fiq lañ gën a jë euh, laal ci yeneen lu mel ne tawxid wala tasawuf foofu itam nun murid yi dañ laaj lan lanu sëñ bi tànnal ci ñetti xaaji diine yooyu nga xam ne diine génn ko foofu sëñ bi leeral nanu wax ne ad'u ila al ilahi bi tawxiidi wa ma raaytu anhu min mooy man damay woote jëme ci tawxid kon tawxid ci sama mbir la bokk waxaat ne itam ne lillahi ad'u bi tafaqquhi bila maylin li gayrihi wa kulli qabila mooy damay wootee jëm ci fiq mooy jaamu yàlla yi ñu ci cër yi loolu it ci sama mbir la bokk waaye wax na itam lillahi ad'u bi tasawufi maa makarimil axlaaqi wa huwa samia mooy damay wootee dem jëmee ci tasawuf ndax lool it ci lislaam la bokk te ci sama mbir la bokk kon gis nañ ne ñetti xaaj yooyu yépp sëñ bi daa jëlandoo lépp bañ ko laajee sax tariqa murid ci lan la lan lañ ko tabax dafa xam ne ussu tariqati al imaanu bi tawxid wal wal islaamu bil fiqhi wal ixsaanu bi tasawuf mooy imaan lañ tabaxee yoonu murid ju su joo xam ni xam-xamu tawxid moo koy jàngale tabaxe ko itam islaam joo xam ni xam-xamu fiq moo koy jàngale tabaxee ko ko itam ixsaan boo xam ni xam-xamu tasawuf moo ko jàngale kon ñetti xaaj yooyu yépp sëñ bi da koo jël mu bokk ci mu doon mu doon loo xam ni moom la doon jàngale wooteem bépp génnut ñetti xaaj yooyu waaye itam foofu it beneen jafe-jafe day am mooy boo duggee ci tawxiid ci misaal tawxiid ay ngir yu bari ñoo fa ne xam ngeen ni am na ci biir tawxiid ñu ñuy tuddee al ashaira am na ñuy tuddee al maturidiya am na ñuy tudde al mu'tazila am na ñuy tudde al murjia am na ñuy tudde al xasawiya wala al karamiya am na ci jamono ji ñuy tudde al bahaiya ak qadiyaaniya yooyu yëpp ay kuréeli tawxid la ci biir tawxid sax gis nañ ci ay kuréel yoo xam ne politique moo ko jur comme chia ak lu mel ne xawaarij yi ak lu mel ne wahabiya masalan kon tawxid dafa yaatu ay pàcc yu bari la foofu dinañ laaj lan lañu sëñ bi jàngal ci tawxid lan lañu ñu tànnal sëriñ bi foofu tontu nañu leeral nañu ne awalu waajibin ala almuridi taxsilu zaadihi min altawi min altawxidi qabla istigaalihi bilinfiraadi bildikri walxadiisi bildikri waxdahu wa biljihaadi muntahijan madhaba ahli sunna maa aljamaati wa tilka aljunna mooy maa ngi leen di tànnal pas-pasu ahlu sunna wal jamaa te mooy pas bi ñuy askan ci ki ñuy wax abul xasan gën na koo leeral feneen moom sëriñ bi wax ne wa bi aqaaidi salusiyi sharif aqaaidan fi xaqi rabbina latif mooy lim tànn ci pas mooy li ahlu sunna yépp nekk te mooy li ëpp ci jullit ñi li ñu nekk muy ñu leen tudde ahlu sunna wal wal jamaa muy pas-pas bi yonente bi alayhi salatu wasalaam doon jàngale ki ko leeral di abul xasan ashari yi tax ñu koy askan ci moom pas bu boobu lañu sëñ bi tànnal téeréem yi mu ci tawxid yépp mawaahibul quddus tasawudu shixaar njëlbeen ko tasawudu shubaan jasbatu shixaar faydul xani al yooyu yëpp ci pas-pas boobu la ko bind kon foofu lanu sëñ bi tànnal bu dee ci fiq itam buñ ko laajee loolu tànnal ndax fiq it dafa bari ay ngir xam ngeen ne ci njëlbeenu xarnu ñaareel bi ci gàddeeg yooyu bi alayhi lu bari lu bat fukki ngir ak juróom ak ak ñett feeñ nañ ndax Sufyaan ibnu Uyaynata xam ngeen ne borom ngir la woon nekkoon Makka alxasanul basri yoroon ngiru boppam nekk basra suf sufyaanu thawri nekkoon kuufa moom it yor boppam al nekkoon shaam yor ngiru boppam al layth ibnu sa'd yoroon ngiru boppam ca misra Égypte isxaaq ibnu rahaway moom yoroon ngiru boppam ca naysaabuur abu thawr ak ibnu jarir tabari kenn ku ne yoroon sa ngirum bopp ca bagdaad bokkut ak ngiir yi nga xam ne moo siiw fi ne moo fi des fi mu ne nii muy juróom-ñett yi ngir yi nga xam ne ba léegi seeni téere ngi fi am ñu leen topp mel ne abu xanifata nu'man muy ngirum alxanafiya ak ngirum imaamu malik muy almalikiya ngirum imaamu shafii muy muhammadu bnu idris al moo ko sos ngir moomu ak ahmadu bnu hambal ngiram muy hambaliya ak ngirum daawudu bnu ali zahiri muy al zahiriya ak ngirum zeyd ibnu ali ibnu zeyn zeyn ibnu ali zeyn al abidina doomi al xuseyn ibnu ali ibnu abi talibin xam nga ngiru boobam la moom bu ñuy wax azeydiya ñu bari ñenn ci siyaa yi ci moom al ibadiya masalan moom it ngiru mboxum la ku ñu wax abdullah ibnu ibad tamimi sos ko xeeti ngir yi ma ak imaam yi muy jaafar yi muy ngirum siyaa yi li yëpp ci siyaa ngir biñ ne kon juróom-ñetti ngir yi fi des nii bokkut ak lu mat yeneen juróom-ñett wala lu ko muy fukki ngir ñett yoo xam ne lépp ay ngiri fiq la ci wàllu islaam ak jaamu yàlla yi ni ñu koy jëfandikoo foofu it faw nu laaj lan lañ ci sëñ bi tànnal foofu it sëñ bi tànnal nañu ne yéen murid yi ma aleykumu bil malikiya fa innaha mutaharatun munawwara dénk naa leen ngeen mooy ci ngirum imaamu malik mu imaamu daal hijra moo dëkkoon madina kenn rek moo ko mag ci boroom ngir yi mooy abu xanifata nu'man ñi ci des mooy seen ndax mooy sëriñu saafiyan yi saafiyan yi di sëriñu ahmadu ibnu hambal ahmadu ibnu hambal di sëriñu sëriñu imaamu buxaari kon kooku la ñu sëñ bi tànnal wax na itam ci beneen bërëb ne wa bi tafaqquhi l imaami malikin tafaqquhan yamnau min mahalik kon loolu mooy wàllu ñaareelu xaaju lislaam bi ñetteel bi muy tasawuf tasawuf xam ngeen ne ay masharib la ay naanuwaay la yu bokkut ay doxin la yoo xam ne bokkuñu mëni su da wax a ci am ndax tarixa yi ki ñi nga xam ne ñoo xam tasawuf dëgg-dëgg boo ko toppee ba ci biir lenn la lenn la sëriñ bay wuute ak na muy yare taalibe yam àndal bu ko defee nag ay masharib la am mooy ay doxin am na ci mashrab boo xam ni ñaari mashrab yi ci gën a siiw mooy li ñuy wax tariqu shukri ak tariqul mujahada tariqu shukri mooy dox ci sant yàlla ak sa xol nga aj ko ci yàlla dund gëm yàlla ak feesal dell sa xol ci ubudiyya mooy dund ak njaam sa diggante ak sa boroom di doxe ak lottu ak tële ci lépp lépp it nga delloo ko ci yàlla moytu bànneexi àdduna yi te itam doo sonn ci yenn jaamu yàlla yi loolu aw doxin la ci tasawuf waaye am na itam mujahada mooy doxub yaram mooy di woor te doo noppalu di julli te doo noppi fanaanee naafila ak di saxoo xëlwa doo génn waxtu wu ne sa yaram bi nga di ko faat ngir rey sa bakkan ngir sa ruu mën a dund loolu aw yoon la ci ci tasawuf ab mashrab la yoon mu njëkk yu ma njëkk wax mu tariqu shukru kiñ ci gën a miin mu jëmmal ko mooy abul hasan as-sadali imaam abul hasan as-sadali ñoom ci doxin woowu la ñuy dox waaye yoonu ñaaral bi mën nañu wax mën nañu wax ne imaamul ghazali moo ko gën a jëmmal kon ci gàttal li ma bëgg wax mooy xeeti naanuwaay yi ci tasawu yi ci tasawuf it foofu dañ laaj sëñ bi lan lan ci tànnal waaye buñ seetloo dañuy gis ne sëñ bi daa boole xeeti naanuwaay yépp yi ci tasawuf loolu ma na ko déggee ci lenn ci waxam li mu wax ne qultu wa qasdi shukru an jihaadi ak feneen fu wax ne jihaadu nafsin wa shukrun bil qadaai ridan baat yooyu da nga ci dégg ne dafa boole tariqu shukr ak tariqul jihad wal wa mujahadatu nafs anam gu ne sant na ni yàlla làkk yépp danaay wax ne sadd na ci yàlla wax na sax ba wax ne maanaam ci wolof ak tubaab bi nga xam ne mosu cee nangoo wax benn baat gis nga day wax ne a sama wal ardi rabbal arsi laka saraftu jëf wa merci yëmul ci loolu wut na sax bis boo xam ni sant yàlla kese moo ko tax a jóg loolu amul ci àdduna mosut am ci àdduna mooy bis boo xam ni dañ fay ne di sant yàlla di ko sant la yàlla moom moom moom sëñ bu mag bi kon sëñ bi ci sant yàlla mashrab boobu da cee naan ba màndi da ci da ci dox waaye jihaad it boo ci ñëwee jihaad ak bakkanam da ngay yaakaar ne loolu rek ci la bi dox sëñ Tuubaa mooy koo xam ni li sëñ Basiir wax kaana yatwi layaali wal ayaam daana am lu ëpp ay lu xaw a jege weer te dara du dugg ci gémmiñ dëkke koor mësta dog koor lu may bis yi nga xam dafa xaraam ko ko wor lekk waxi nopp danaa digal sax murid yi wal tajalul juuxa taxaamakum abat loolu ndigal loolu daay wax ne lu naqari jëfe la wal tajaalul juuxa taamakum kenn mënu koo jëfe alaykumu bil juuxa innal juuxa yuhadibu mutiaan yi ko sëñ bi waxe loolu ndigal la yoo xam ne sëñ bi jox na kon ci wàllu yooyu yëpp boo gisee sëñ bi da ciy dox ñaari machaari bi am ci tasawuf yëpp bu ma bëgguloon a guddali guddali dinaa la indil bay yoo xam ne day jëmmal xeeti naanuwaay yi am ci tasawuf mooy yi mu wax ca masaalik wal xaasilu suufi aalimun amil bi ilmihi xaqiqatan walam yamil fa saara saafiyan min al akdaari mumtali al qalbi min al anwaari munqatian li rabbihi min al bashar musawiyan dinaara aynin bil madar kal ardi yurma fawqaha kullu qabix wala turi min batniha illa malix wa yatauha alkarimu wallaimu walbarru walcaasi wa tastadiimu wa kasamaai wa ka qatli almaai fi dilli wa saqi bila istinaayi bila istisnaayi wa man yakun kadaka fa huwa suufi aw laa fa du daawa ala almaarufi bayit yi ma jàng nii xeeti naan waay yi ci tasuuf yépp mi ngi ci biir bayit yi tariqu shukr mënees na ko cee ballalu tariqul mujahada mënees na ko cee ballalu ak yeneen yi naan waay itam sëñ Moustapha Diop ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo jagoo gëstu tasawuf ñoom danañ xam loolu yi may wax foofu waaye itam ñu bàyyi xel ne sëñ bi ci tasawuf royu ci kenn royloowun ci kenn itam tarixa boppam la yor tarixa nag bu ñu ko waxee ci tasawuf baatu tarixa bu ñu ko waxee ci tasawuf mooy wirdun xaas mutalaqan min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mooy wirdu boo xam ni wala dikr boo xam ni yonente bi moo ko jox ab jaamu yàlla ne ko nga yar ci sa gaañe sëñ Tuubaa nag yàlla ci boppam moo ko jox wirdu woo xam ni dafa xam ne min al maxuus min allaahi bi waasitati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi da ko indi rek waaye yàlla ko ko jox ne ko nga jëfandikoo ko te di ko jox sa gaañ ñëpp kon loolu tariqa boobu lay firndeel gis ngeen cheikh euh, ahmad tidiane yi ak cheikh sidil muxtaar kunti ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne daa àggoon na ci di di gis yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi di leen digal ñuy def di leen tërbiya cheikh ahmad tidiane yi am na tariqa boobu waaye Cheikh Sidi Muxtaar kenn du ko tuddal tariqa parce que ndax amul wird xaas mutalaqat min rasulillah sallallahu alayhi wasallam kon sëñ bi ci bayiwuna kenn machaar yi yëpp lay jëfandikoo waaye nag boppam lanu royloo ci tasawuf nga xam ne amul lenn lu ñuy jëggaan feneen foofu it beneen jafe-jafe day am mooy ci biir ñetti xaaj yi ma wax boo ca duggee day amaat yeneen yi wuute masalan ci tawxiid tawxiid gis ne sëñ bi am na lu mu ca jël ci achaira yi waaye am na lu mu leen bàyyee mooy coowul ilmu kalaam loolu nga xam ne du dakk loolu sëñ bi dugg ci boo gisee ci mawaahibul quddus indi na lay yi wane amuk suñu borom tabaraka wa taala waaye xóotul ci coow li nga xam ne moo nekk ci ilmu kalaam ilmu kalaam boo demee seen téere yi ulamaaw kalaam yi ay téere yu dul jeex lay doon yoo xam ne seeni wax du jeex coow loo xam ni werante woo xam ni woowee boo gisee dañ gis ne sëñ bi dafa ne dafa ne ñukk loola ci biir tawxiid ci biir fiq itam dangay gis ne ci Maalik ngiru Maalik day amat ay wuute waaye lu ci ne itam sëñ bi dana ci tànn lenn di ko def wala mu digal lu ne dee leen def nangam bàyyee wunu itam ak seen bopp dinaa joxe misaal rek ndax mënu si ci indi misaal yu bari benn misaal laa ci joxe masala nun bu ñuy julli dañuy wàcce suñu loxo te loolu jamono jii nii ngir yi fi am ngir ahlu sunna yépp muy ñetti ngir yépp dañuy yëkkati seen loxo ci Maalik nag li gën a wér mooy wàcce sa loxo donte ci biir ngiru Maalik sax am nañu saxal ne yëkkati sa loxo moom la moom mooy moo ci gën a wér waaye ñoo ñu néew lañ waaye li may wax rek ne Sëriñ Tuubaa lépp lu mu tànn Sëriñ Tuubaa ku yàlla waajal inaaya ilaahi moo ko topp doon toon koo xam day jëf ci jëf yi boppam lépp lum lu lum lum lum nu digal day fekk muy ndigalul suñu borom tabaraka wa taala daaiyan ilallaahi bi isnihi la woon moo tax lu mu tànn da ngay gis ne boo gëstoo da ngay gis ne loolee mooy la gën a wér loolu dinaa koy wax lu bare bare ci misaal satlu bii nii boo seetloo ngir yi fi amoon te te amatuñ boo ko ngir yi fi ne dangay gis ne ñii def satlu ñoo ëpp fi ne ci ngir yi ci misaal bu dee saxaaba yi lu moo doon ngirum muy wàcce say loxo ci julli moo doon ngirum Abdullah ibnu Zubayr mooy ngirum Saïd ibnul mooy ngirum Saïd ibnu Jubayr mooy ngirum Ata ibnu Abi Rabah ak ibnu Juray ak ibrahima naxaay mooy ngirum xasanil basri nga xam ne borom ngir la mm, eh, xaas la woon aw la amoon mooy ngirum ibnu sirin mooy ngirum imaamul baqir mu chia yépp gis nga ñoom dañu wàcc seen loxo mooy ngirum lay ibnu saad lays ibnu saad fenn rek la ñu wute mooy dafa wax ne bu naree gudd moom taxawaay bi man ngaa yëkkati say loxo ngir dëgërloo ko ku mel ne imaamul awsaa'i moom dalaa tànnloo bu la neexee def li bu la neexee def li kon boo boolee ngir yëpp day gis ne lii moo ci ëppoon moo tax li ñuy def ni ci satlu ci biir ngiru Malik loolu la ndax sëñ bi lool la daa def loolu ay wuute la li ma bëgg wax mooy ci biir ngir mi dañuy gis wuute yoo xam ne sëñ bi da cee tànn lenn loolee mu ci tànn nag soo gëstalee soo gëstoo sab xóot dangay boo xóotalee sab gëstu da ngay gis ne amul lu ko gën a wér lu ko gën a dëppug sunu si yonente bi alayhi salaam yonente salaam danaa def lenn ba mu yàgg mu digle leneen dana am mooy dana am xaddis yoo xam ne am lu ko nasxu ci misaal njullit ñi ci seenu njëlbeen baytul muqaddas lañ doon lu jublu bu ñuy julli mujj gi mu ne leen dee leen jublu kaaba gi njëlbeenu lislaam yonentu dara wax ne bu leen bind sama xaddis mujj gi mu ne dee leen bind xaddis yi soo gisutoon ndigal lu mujj li da nga yaakaar ne xaddis dañuy aaye ko ko bind loolu yéen nag la saddu demee yonente bi xëy na mas daana ko def waaye li mujj def imaamu malik roy ko ci ak ahlul madina mooy mooy satlu boobu kon loolu misaal la rek ci biir fiq loo xam ne sëñ bi dana nu ko tànnal yu bare bare ci biir fiq ma mënoon nañu ko indi bu dee ci tasawuf lu mel noonu da ci am am na lu mu ca jël waaye am na loo xam ni dañ koy tudde tasawuf mu bàyyee leen ko ci misaal li ñuy tuddee ak tasawuf al falsafi mooy tasawuf boo xam ne day xóot ci wax wàllu ruux ak aalamul arwaax aalamul almaftuxiina ñooñu di ci wax di ci xóotal wax yoo xam ne yow kenn mënu koo vérifier wax yu mel noonu boo gisee sëñ bi xóotu ci moom daa jàngale yoon wi rek la ngay mos nag boo àggee nag loolu mu bàyyee la ko ak yow saa yoo àggee xam kon loolu ci gàttal ci xeeti ci diine lislaam bu fekkee ne li mu wax leer na da gis ne lenn lu ci ne am na lu mu ca sëñ ba tànnal loolee la jàngale loolee moo cay jàngaleem sëñ Tuubaa itam ci yeneen xaaj yi am ci lislaam yépp itam boo duggee noonu la ci misaal bu ñu jëloon wàllu xam-xam wàllu xam-xam sëñ bi am na ci doxin am na ci lu ci jàngale da ngay gis ne ci njëlbeen sëñ bi digle na ñu yitte woo xam-xam wax na ne fa saari'u lil ilmi ajmaina na ngeen daw yéen ñépp wuti xam-xam waaye nag dara wax ne xam-xam bi ngay wut na ko wut li wajhi dil jalaali qaasidina na yàlla tax na yàlla tax naafiuhu alladi ladi lfata taallama lillahi jalla waxdahu wa allama mooy li ngay jàng na yàlla tax na ko jàng ngir yàlla bul ko jàng ngir rëbboo ko adduna ak ngir wute ko adduna ak ngir wute ko daraja ak ngir wute ko ak ciwte waaye na nga jàng ngir yàlla na ngay jàngale itam boo amee xam-xam ngir yàlla wax na nu sax ni kii jàng am na ñeent yu mu war a fas ci xolam yéene ko ci njàng mi mooy li mu wax ne awaluha alxuruju min dalaali wa saani nafru xalqi dil jalaali taalisuha al ixyaau lil ulumi wa raabiu al amalu bil maalumi ba ca jëkk mooy na nga yéenee génn ci réer ñaareel bi na ci yéene jariñ mbindeef yi soo xamee ba noppi ñetteel bi na nga yéenoo yéenee dundal xam-xam ñeenteel bi na nga yéenee li nga xam nga jëfe ko suñ tuwaay daana daana soññee ci jàng xeeti xam-xam yépp ndax daana wax ne hada wa xayru ilmi ya dawi luqul ilmun muqarribun liman minhu nuqul kal aqdi wal fiqhi wa kat tasawufi wa kulli ilmin bi manafia yafi bépp xam-xam bu am njariñ ginnaaw boo xamee sa diine mën nga ko wuti kon boyal nañu ci wuti xeeti xam-xam yépp waaye itam danaa wax itam li nga xam na nga ko jëfe masalan nun ñi nga xam ñoo bëgg a tënk suñu bopp ci njàngalem sëñ bi sëñu ñoo jàng ne ko fa ñukk faw li nga xam danga nga ci jéem di ko jëfe ndax sëñ Tuubaa wax ne wa man xawaa ilman wa laysa ya'malu noo fa innahu ximaarun yaxmilu danaa wax itam ne boo xamee ba noppi na nga tabe ci sa xam-xam mooy luñ la laaj te nga man ca te nga xam lu wér loo ca mën a wax na ko wax ngir yàlla wa kawnuhu bi ilmihi saxiya wa an yakuna aamilan wafiya fa kullu man baxila bil ilmi fala budda lahu min ibtilaain nukkila képp koo xam ne yaa ngi nay ci xam-xam faw yàlla natt la ci àdduna loolu la suñu tubaa daa wax kon moo ci njàngaleem suñu tubaa ci xam-xam mooy nanga ko wuti te na yàlla tax tey tam li nga xam na nga koy jëfe te na ci tabe di ko xam ne waat ngir yàlla bu dee ci wàllu jëfe xam-xam masalan jaamu yàlla jaamu yàlla itam am na lu sëñ bi jàngale la ci njëkk mooy sëñ bi dara bëgg yow murid bi wala jullit bi li ngay def ci lu baax na nga ko teg na ko lal ci kaw ragal yàlla laazim ibadatan laazim ibadatal ilahi bittuqa ilal wafaati waltarub minhul wafa ba keroog ngay faatu diirub nga nekk ci kaw suuf li ngay def ci jaamu yàlla na lalu ci kaw ragal ko ragal yàlla dana wax itam bokk na ci njàngaleem sëñ bi ci wàllu jaamu yàlla mooy bala ngaa def dara ci xeeti jaamu yàlla na nga jëkki woo def farata yi al istixaalu bil faraidi maan qabla siwaha waajibun qad waqaa mooy bala ngaa def genn jaamu yàlla na nga njëkk a xëntewoo farata mooy julli juróom yi ak koor gi yàlla farataal ak asaka ak aj makka doog nag dugg ci yeneen nafila dana wax itam ne li ngay jaamu yàlla itam na tegu ci ak xam bul def dara loo xam ne xamoo ko wax sax ne fa qillatul amali bil ilmi tafuuq kasirahu bil jahli fal ilmu rafiq lu ak jaamu yàlla bari bari te tegul ci xam-xam jaamu yàlla gu néew te tegu ci xam moo ko ëpp dara daraja fuuf gën ko danaa wax sax ne id kullu ilmin bila ilmin yura fa saayuhu mithlu habain nuthira li waa ji jëf lu mu bari bari ci jaamu yàlla te tegul ci xam moo bënn bu ñu wesaare fii moo yem mooy yàlla amu ci soxla ndax day bari ay sikk kon jaamu yàlla njàngaleem sëñ bi ci loolu mooy nan njëkkee woo xënte woo farata yi te di ko teg ci xam daana wax itam ne boo defee farata yi ba noppi xeeti jaamu yàlla yi ngay def la ca gën mooy li nga xam ne njariñ li da laa jéggi dem ci keneen wa afdalul amali ma taaddadat lahu fawaidu ka ilmin qad am an jahli di jahlin wa qubhin yadfau wa kulli ma lidi rachadi yanfau mel da ko misaal ci xam-xam boo xam ni danga koy jàngale ngir yàlla nit xamee ci diggam ak boromam ba mën a jaamu yàlla muy li nga xam ne moo tax yàlla indi ko ci kaw suuf xam ngeen doomu aadama yàlla da leen sàkk ngir ñu di ko jaamu ci kaw suuf ku la teete nag ci nga gën a jege sa boroom gën ko jege ci gën koo xam gën koo jaamu kookee defal na la loo mu loo ko mën dafay kon sëñ bi dafa wax ne jëf yi la ca ëpp solo kon mooy jëf yu mel noonu joo xam ni dalay jékki moom njariñ li dem ci keneen jeneen doomu aadama la ca topp ci xeet jëf yi mooy wamaa yu sabbi qalba wa huwa ma mooy la ca topp ci xeet jëf jaamu yàlla mooy luy defar sa xol la ca topp mooy wa kullu ma ala nufuusi saqu la mooy lu diis ci sa bakkat metti da ko misaal ci koo xam ni dafa nay joxe moo gën ci moom geneen jaam yàlla gu may man gu mën a defaal ki nga xam ne dafa fuqale bëgg lekk kooku koor moo gën ci moom xeet jaam yàlla ci des yëpp ki nga xam ne dafa bëgg siiw bëgg ñëpp xam ko lu mu gën a nëbbu lu mu gën a not bakkanam ci kenn bañ koo dégg loolu mooy jaamu yàllam di gën a rëy noonu la ko sëñ bi toppee kon loolu it ci njàngaleem sëñ bi la bokk ci wàllu jaamu yàlla sëñ bi tam wax na lu jaam bu ne jaam bu ne war naa am wird mooy ja wird sëñ Tuubaa da ko tekki shay'un murattabun min al ibada mooy ak jaamu yàlla moo xam julli yooyu def la wala tudd yàlla yooyu def wala naafila yooyu def wala jàngale xam-xam mooy jàngale lu mën a doon rek ak jaamu yàlla goo xam da koo saxal ngir yàlla loolu la sëñ bi wax ne mënta ñàkk wax ba li nafsika ala tamaadi daxiratal wirdi min al awraadi walaw qalilan waaye loolu sëñ bi da jàngale ne li ngay def ci lu baax te nañ ci sàmmonte ñaar mooy waxris ala al ixlaasi wal ixfaayi na nga fexe ba mu sell te na koy nëbb bu ko kenn xam ci li ngay def loolu it di ñàgg mu am solo ndax dara wax ne fa la jullu ma baana lahum minhu fala yaksuru nafuhu li nit ñi xam ci li ngay def ci lu baax njariñ la du bari fa yàlla boo bëggee li ngay def yàlla nangu ko te njariñ li bari fexeel ba bu ci nit ñi xam dara loo leen ko mën a nëbb na nga ko nëbb noonu la ko sëñ bi toppee domaine bu ne rek am na lu ñu ca jàngale ci misaal ki bëgg a sóobu yoonu yàlla sëñ bi jàngale na ci lu am solo loo xam ne gis naa ne kenn ku ne war na ko bàyyi xel mooy dafa wax ne bala ngay dem di soobu di sonn ci tudd yàlla yu bari ak naafere yu bari la nga war a jëkke yow murid bi mooy jàng ba xam xam-xamu tawxid awalu waajibin yi al muridi taxsiru yi min at tawxid qabla yi bil infiraadi bi zikri wahdahu wa bil jihaadi bala ngay wéet di jaamu yàlla ay jaamu yàlla yu bari njëkk la am xam-xamu tawxid da caa teg ne iz zulumaatu bid'ati i'tiqaadi takufu anwaar ittibaail haadi sooy yàlla man ngay jékki-jékki am lay feeñu ngay gént nga def mbir nag su nga am pas mën ngaa dem ba ñàkkee teggin sa borom subhaanahu wa taala xeeti bidaa dugg ci sa pas-pas te boo seytaan dana la fëkk ndax yàlla dana la wàcci te bu la yàlla wàcce seytaan fëkk la moo tax suñu wax ne bala ngaa dugg ci sóobu di def yenn yi na nga jëkke wuti xam-xam pas-pas dana tax diirub ngay dox ci yoonu yàlla di nga sàmmonteeg xaq suñu borom tabaaraka wa taala ak sariyaam jii nii sëñ bi teg ci ne boo boo jëkkee wàllu pas-pas ba noppi wa ba'dahu tahsilu ma yusahihu bi furud al ayn ka tuhri wa siyaami wa salaati wa hajji baytillahi wa zakat soo amee xam-xam tawxiid ba noppi bul bul soobagul na nga jàngi ba xam jaamu yàlla yi ni koy defee mooy nan la ñuy jullee nan la ñuy woore nan la ñuy laabe yooyu yëpp na nga ko xam ak nan la ñuy natte asaka ak aj màkka dooga nag wa baadahu yasluku inraamal wusul ala yaday yàq yaqfu rasul soo noppee nag doog a sóobu na wutib sëriñ sëriñ bi da wax na ne mooy na nekk mukammil ku mat ba mën a matale ku jaar ci yoon wi defaru ba mën a defare yaqfu rasul tegu ci sunna si yonente bi alei salatu wasalaam teg tànkam ci xeeñtu ngirum yonente bi alei salatu wasalaam na muy ànd ak yow sëñ bi wax na ko mooy yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi la aada na lay wommat ci kaw lu tegu ci xam-xam ak jaamu yàlla lu dëppoog li yàlla bëgg ba pare di la yar ci nga génn ci sa aaday bopp sa bakkan yi bëgg dina yóbbu ci jikko yonente bi ak li neex yàlla da ci daa tegit ne loolu mooy sunna si yonente bi alei loolu lañ mën a déggee ci li mu wax ne man talabal wusula lil jalili fal ya'tasim bi sunnati rasuli bi an yulazima muti'an la yamin mooy wut ab sëriñ mooy ci moom sëñ bu mel ne sëñ bi wax noonu loolu mooy sunu yonent bi alayhi salaam dana wax ne ku ko amul ba pare beru rek di def say jaamu yàlla kooku mi ngi xuus ci lëggi alkande te dara du ko am dara du sottee ci moom fa kullu man qabla wusulihi i'tazal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaxudu fi baxri rada wala yajiu minhu sheyun abada li annahu yaquuduhu seytaanu seytaane moo lay wamat lu ne mën na la ko wan dinay misaal imaamul bi dañuy wax ne dafa am taalibeem boo xam ni dana ñëw ci moom mu koy tërbiya benn bis waa ji xëy toog ñëwatul mu yónnee fa laaj lu ko wax mu ne ko man kat la ma doon sàkku si am naa ko moo tax jëratul ma lay topp ak di wuti dara mu ne ko loo am mu ne ko man saa yu ma naafila lu ma ju léegee ba noppi rek ay malaaykaay ñëw fii yóbbu ma ànd nga yóbbu ma aras ma fanaan fa ba fajar ma doog a del ci imaamul Junayd wax ko ne ko bu ñu la yóbbootee ba nga nekk aras na nga wax laa hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim waa ji jekki-jekki am ay mbindeef yu ñëw yóbbu ko ci bërëb bu leer boo xam ne moom ginnaaw mës ta gis aras xamul nu aras mel bu demee ci bërëb bu leer nañu day kat foofu mooy aras bi mu waxee laa hawla wala quwwata illa billahi al-azim mu jekki-jekki nee na leer gépp fay ay pes di ko jóge fenn ñu di ko pes di ko dóor nekk sën bi nga xam ne moo nekk ci ginnaaw këram fa la ko ay jinne daa yóbbu di ko leer yoo xam ne mosu ko gis mu yaakaar ne foofu ma wax mooy ki nga xam ne toppul ci ginnaaw kenn amutub sëriñ jekki-jekki soobu yoonu boppam kooku lii sëñ wax ne day mi ngi xuus ci lëggi alkane yu mel noonu rek moo moo lay lay teg moo tax sëñ Tuubaa daa wax ne tasawuf ak yoonu yàlla am manning la fa man bi mahmahi tasawufin nasal bi xeyri tashyi'i murabbin qad kamul fa innahu yaxudu fii lujji rada wala yaji'u minhu shay'un abada sëñ Tuubaa itam daana wax ne yow murid bi booy roy ci borom xam-xam yi ka ngay roy sëñ bi wax nanu ko mooy wala takun muqtadiyan mil ulama illa bi aamilin bi ma qad alima na nga seet boroom xam-xam boo xam ni day jëfe lam xam ngay roy ci moom bul dégg kenn rek ci rajo bi ni nga tàmbali koo roy ak a digluy waxam te xamoo doon kon loolu mooy gàttal li sëñ bi jàngale ci yoonu suubu yoonu yàlla yoon wu leer lanu tëral bu dee masalan ci misaal wàllu fàgg lu leew liggéey loolu it sëñ bi jàngale na ci wàllu économie loolu dugg na ci njàngum njàngaleem sëriñ bi la ci jëkk mooy sëñ bi dafa digle ñu fonk liggéey wa amal li di dunya bi ma takun tamkusu fiha ay fatinu na nga sax ci fàgg lu lew liggéey ba mel ne doo fi jug yëmul ci loolu danaa wax sax ne ñi nga xam ne dañoo wax ne dañuy wëkkirlu ci yàlla ba nanguwu ñoo liggéey ñooñu seeni xel ñoo neexul fa tarku kasbin liddia tawakkuli ma altifaatin fexlu humrin yan in jëli mooy yow nanguwoo liggéey ba pare itam sa yitte yëpp mooy di xaar ak di xalaat li li ci loxi nit ñi nee na ku xel ku ënt xel xelam rek moo koy def loolu kon jàngale na kon ñu fonk liggéey njëkk njëkk waaye itam ci biir liggéey bi dafa am lu ci jàngale mooy la ngay fàggu na nekk lu lew iltamisul xalaala kulla saa bi du yabdul huda wa taa mooy li ngay fàggu na nekk lu lew sa sa sam njënd ak sa njaay ak sa fàggu yépp ak sa liggéey bépp na tegu ci ni ko sharia bëggee mooy tax mu lew ndax nee na dañaa wax ne bi aklihi yabdul huda wa taa su fekkee ne yaa ngi lekk loo xam ne lewut loo jëf yàlla du ko nangu mënoo jub itam loo ñaanit yàlla du ko nangu laa yanfau al ilmu wala al ibada bil akli al xaraam inda saara sax mu xam lu mu bari bari bari sa jaamu yàlla lu mu bari bari boo dee lekk lu xaram wala li ngay jëfandikoo léwut yàlla du ca soxla dara du ca nangu dara te dara du ca baax moo tax sëñ bi daa daa taxaw ci li ngay fàggu ci wàllu liggéey na nekk lu lew boo ko fàggoo ba mu lew la itam bul ci xaabaabal ci jëfandiku gi loolu sëñ bi daa wax dana wax ne wajtahidu in niltumuuhu fi ixtisaar fi ixtisaar an shibain fa innahu ra'su ra'su iqtiraar ishibau shaxsi min alxalaali mabdau kulli sharri fi alaxwaali lekk ba reg ci lu ci lew loolu mënees na ko déggee ci anam yu bari mënees na ko déggee ci jëfandiku ci xéwal yi waaye mënees na ko déggee ci bagage yi ngay indi sa kër ak kër yi ngay tabax ak yu demee loolu loo ci ëppal rek weesu nga limite ba ci sëñ ba wax te boo nee na loolu mooy bopp woru foofu la ay yépp ak sikk yépp foofu la tàmbalee kon wàllu liggéey sëñ bi am na yoon wu wér wum nu ci jàngal wum nu ci teg mooy nañ nangoo liggéey waaye li ñuy fàggu na lew mooy ni koy fàggoo na dëppoog ni ko sariya bëggee te itam lañ cay jëfandikoo buñ ci xaawaabal nañ koy dellawaat suñu kem kattan ci yoonu yàlla ak ni ak li yàlla bëgg ci misaal itam ni ngay dundeek société bi ni ngay dundeek nit ñi sëñ bi lenn lu ci ne am na luñ ci ca sa diggante ak say wax na ne wa burra walidayka warfuq bihima wa kun mubaadiran ila amrihima wantahi an jumlati ma qad nahayaaka anhu li ko fa yasdaada ulaak mooy say waajur na nga leen toppatoo di dundal sa sa diggante ak ñoom di leen jokk te di leen yërëm te luñ la digal na ko def lu luñ la tere na ko moytu ngir yàlla soo ko defee de di nga yokk fa yasdaada ulaak société bi tam boo seetloo ña ñaara ci ne wala ñett mooy ñila la mag ak ñi nga ak ñi nga xam ne yaa ñooma tolloo ñi la mag sëñ bi dafa wax ne wa haytuma saahabta shakhsan akbara minka fala tazal lahu muwaqira waxdimhu fi jamii ma yaxtaaju ilayhi tuqdaa laka ba'da ba'dul xaaju mooy ki la mag soo àndee moom wala nga nekk moom na nga ko jox cër wekk ko te na nga ko na ngay sax di ko liggéeyal li mu bëgg lépp lu mu la sant te nga man ko na ko def ngir yàlla moom ki ki la féete ndaw dafa wax ne farxam saxiran laa takun muddaxira anhu layaadan min nasihatin tara fiha lahu rusdan ki nga féete mag kooki na ko yërëm ba mel na ndeyam mag baayam ci moom bul ca yam loo gis mu amal ko njariñ na ko ko digal na ko ko dénk te yàlla tax muy dem rek ci misaal am na yeneen tarixa yu ñu fi nekkal ñooñu sëñ bi jàngal na nan lañuy ñuy ñoom wax na ne fa kulluhum yad'u al-muridina ila taa'ati rabbil arsh haythu ma jala tarixa yépp dañuy woote jëme ci yàlla bil istiqaamati ci njubit ci lañ ne kon fala tasxar ahad minhum wala tunkir alayhim abad bul ree benn tarixa bul diingat benn tarixa jàppal ci li nga ne mën ngaa am fu lay jàpp ne nag yow yaa gën li ñépp tarixa gën li ñépp sëriñ te loolu mooy liñ jàpp buñ ko jëpp doon dañuy nekk feneen waaye loolu nag jotuwut ak dara wormaal ak worma ji ñuy jox yeneen nit yàlla yi suñ da ci wax lu bari di wax ne muazziman li xurumaat al aarifin qaabila ahdaari l baraya kulla xiin war na ngay wormaal ormay nit yàlla yépp bul yem ci loolu sax suñ bi daa wax ne wa zur xiyaar al ulama wa saalihin waxdimhumu lillahi jalla kulla xiin watlub duaahum wa minhumu abad kun daa fa tasdaad al mooy nanga leen di siyaare ji ñoom ñoom nit yàlla yi foo leen fu ak fuñ mën a bokk ak borom xam-xam yépp ñu te te mooy borom xam-xam yi jëfe lañ xam ak nit yàlla yi na nga leen di siyaare ji te bul yem ci loolu dee leen liggéeyal sa kem kàttan loo leen mën a defal ci lu baax nga def ko bul yem ci loolu deel sàkku ci ñoom ñaan bul yem ci loolu loo mën a bàkkeeloo ci ñoom na ko def loolu njàngaleem sëñ bi la ci suñu digg ak yeneen sëriñ si ak yeneen tarixa sëñ bi yemul ci loolu yonente yàlla yi ak nit ak awliyaaw yëpp dara wax ne na nga fexe ba ba bëgg leen ci sa xol wa laasimu xubba jamii al anbiya wal awliya wa man yutiicu rabbiya sëñ bi yemul ci loolu jullit ñi nga xam ne ñoom nga seqal nga xam ne duñu ay yoruñu tarixa wala duñu ay nit ay nit yàlla yu mag jullit ñooñu sëñ bi dara wax ne laa tuhin laa tantahir wala tasub wala tuxawif musliman wa minhu tub mooy bul doy dal benn jullit bul gëdd benn jullit bul ŋàññi benn jullit bul tiital benn jullit su la yàlla nattoo ba nga def lenn ci yii ma wax na ko gaaw tuub te moytu lool sëñ bi daal yëmul ci loolu daa xam na fexe ba ñi gëm yàlla ñëpp nga bëgg leen ci sa xol xibba jamial muminina naawiyan xayran lahum na nga leen yéene aw yiw itam yëmul ci loolu dana wax ne faxdimuhumu turan li lay jullit boo mën a defal dara ngir yàlla na ko ko defal ngir yàlla mooy li ñuy wax xidma xidma wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan war rahma mooy nun murid yi suñu yitte moo war a doon kuñ mën a jariñ jariñ la ngir yàlla njariñ loo xam ne duñ ci séentu ak pay duñ ci séentu ak cant duñ ci séentu kenn xam ko kañuy jariñ duñ xool jullit la wala yéefar la wala ku mën a doon ndax sëñ bi yëmul foofu da wax ne nit ñi nga xam ne sax duñ ay jullit nit ñi rek wa kun ma annaasi jamii bil xuluqil xasani yuxbibkal am nit ñépp na nga maase di jëflante ñoom jëflante bu tegu ci jikko ju rafet bu yem ci loolu wa kun ma an naasi jamian dëhraka kama tuhibu an yakunu maaka li nga bëgg nit ñi def la ni nanga ni def jullit nit ñëpp sëñ bi yëmul ci loolu benn nit bu mu mën a doon ak lu mu mën a gëm ci kaw suuf sëñ bi dafa wax ne lépp lu mu sàkku ci yow nanga fexe ba defal ko ko nam ko sàkko wala yarum minka layaadan arimu illa faaltahu bi daaka tukramu sëñ bi dara wax ne yow nanga fexe ba ay teggin yow na ko am waaye bul seet nit ñi am nañ ko wala amuñu ko yow yow fexeel ba am ko rek balir tabir min nafsika al aadaaba wala tutaaliban bi al asaaba bul fe bul bul bëgg kenn jox la cër fexeel bay joxe cër yow rek bu la nit ñi joxee cër baax na ku ñu la ko joxutit nga xam ne loolu la yàlla dogal wala kon multamisan lil asaraat bul gëstu sikki kenn bul jéem a xam benn sikki kenn wal tarhamul xalqa li wajhillahi mbindeef yépp na leen yërëm ngir yàlla loolu mooy njàngale sëñ bi ci suñu diggante ak société bi nga xam ne ci lañ ne loolu it amul sikk ne ki nga xam ne mooy jëmmal njàngaleem sëñ bi ci jikko yu rafet yi ma wax ak doxalin wu rafet wii jëflante bu rafet bi mu jëflanteek nit ñi nit ñëpp a koy maasi sopp ndax yàlla dina ko bëgg nit ñi danañ ko bëgg waaye foofu sëñ bi am na meneen njàngale moom nu fi wax mooy na nga moytu nag waru bu la nit ñi tegee nit ku baax tàmbali di la ñaanlo di la fonk wala ngay waxtaan ni nit ñi di bëgg ngir jëm Sëriñ Tuubaa nee na na nga moytu foofu benn mbir mooy waru dana wax ne summa salaamatu min al gururi min asaabi al ashyaai fi duhuri li annahu yakunu bil ilmi kama yakunu bil jahli mucc ci waru mooy li gën a jafe ci kaw suuf boo ci bëggee mucc nag sëñ bi da la tegal yoon wu leer dafa wax ne fa man yada yaqiinahu limal wara yazunnuhu fii fa gumrun dukara li nga xam ci sa bopp boo wéeteeg sa ci ay sikk bul ko jënde mukk li nit ñi wax ci yow nit ñi nga xam ne xamuñ ci yow dara wala yaxurruka maqaalatuhumu fiika bila ilmin wa tabjiluhumu wala yaxurruka mada al asmaani majiuhum laka min al buldaani li talabi al ilmi wa liltabarruki wa li ziyaarati li xawfi lam yacrifuu maa batuna fiika min al aybi wa ma alana mooy li la nit ñi waxal ci lu baax cër biñ lay jox dikk gi ñu dikk fi yow di barkeelu fi yow ak di la siyaar si loolu bu mu la war mukk ndax nit ñi xamuñu sa biir moo tax li leen yàlla wan sutura si mu def ci sa kaw rek moom lañ gis moom lañ jëflante yow it sutura soos dafa wax ne yow na nga ci ruus sa borom wastaxyi min nadari rabbika al karim fa adamul xayaayi siimatul laim kon loolu it lu am solo la mel na ne waxtu yi noo ngi xaababal man na maa ñëw rek ci ñetti poñ yu am solo ba ci jëkk mooy ki nekk ci biir société bi faaw mu am xarit Sëriñ Tuubaa wax na melaw jàngale na xarit nan la war a doxale ak xaritam wax na ne xarit mooy li gën a néew ci kaw suuf ñu bari jàpp ne lu yomb la ku jug nga ne sama xaritam waaye mooy li gën a jafe ci kaw suuf wal aqu xaqan wal xalilu sidqan andaru min kulli qalilin xaqaa daal di joxe nag lii tax li ñu xamee ne kii sa xarit la mooy inna axaaka alxaqa man yasaa maak sa xarit dëgg-dëgg mooy koo xam ni loo nekk da cay nekk yow doo dem ba mbir mi jafe rek mu génn taxaw fële déedéet loo nekk mu nekk ca yow wa man yadurru nafsahu li yanfaak mooy koo xam nit bu lor taxawee day bëgg a gàddu lor ja yow nga nekk ci jàmm ak sutura ak xéewal moo xarit noonu lay mel day bëgg a lor boppam ngir jariñ la wa man ida raybu zamani saddaak shattata fiika shamlahu li yajmaak mooy koo xam ni soo demee ba àdduna tasaare la sa lépp jaxasoo sa lépp tasaaroo yitteem moo doon dajalewaat la ba nga doon kanga nga doonoon dèjà tegit na ne waman yux fi xul fa xultu waman yux xanaa li yar yarfaak mooy koo xam ne itam lim xam ci yow ci sikk ak jikko yu ñaaw da koy nëbb di ko muur waxtu wu ne ngir bëgg laa gën a yëkkati ci kaw ci kanam nit ñi kon noonu lañu loolu lañ suñ bi jàngal ci ni ñuy doxale ak ak xarit bu dee jigéen ñi itam masalan sëñ bi fàttewu leen soxna yi sëñ bi am na lu mu jàngale ci jigéeni murit jigéeni jullit nan la war a mel digal na ko waxtu wu ne dafa war a nekk am muñkat dafa war a amit ragal yàlla ci lu fés ak ci lu nëbb dafa war a sax ci itam di dellu ci boromam waxtu ne lu ñëw mu delloo ko ci boromam dafa war itam di ànd ak ñu baax dafa war a di nëbbu boppam sëñ bi dara wax ne wala tasaali tasturina al badala wala tuxaalit rijaala zamanan jigéeni murit bul dañ mukk di suturaal sa jëmm ak di sol colug lislaam bul jaxasoo ay góor itam rawatina itam jigéen ji nga xam ne dafa nekk ci ab sëy koo gi sëñ bi fàttewu ko buñ seetloo dañu gis ne sëñ bi li ko gën a yitteel ci jigéen ñi nga xam ne moo nekk ci ab sëy mooy da koy digal na nga topp sa borom kër ndax dara wax ne wala tarumi taatallaahi bi la taati zawjika bul jàpp ne man ngaa topp yàlla te toppoo sa borom kër loolu mënta ne wal taalami anna jihaada niswa fii taati al azwaaj jigéen ñi seen jihaad dëgg-dëgg mi ngi ci topp seen borom kër wa xaytuma zawjun radiya an zawjati radiya anha rabbuha bi ni'mati amma ida lam yarda anha abadan fa laysa yarda allahu anha sarmadan muy dem rek kon sëñ bi fàttewul jigéen ñi itam ak societé jigéen ñi ak fañ ne am na lu mu leen lu mu jàngale ci seenu dundin ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ay kër lu mu jàngale ci seen diggante ak seenu njaboot ak seen borom kër masalan am na ci njàngaleem sëñ bi loo xam ne duñ mën a wax ne lu mu bind la waaye lu mu jëf la ñu gis loolu mën naa ci jël misaal dëkk yi mu doon sanc loolu du lum bind waaye nam nam ko doon sance am njàngale mu rëy ma nga ca fa muy jëkk a tàmbalee mooy tur woo muy tànnal dëkk ba day doon tur woo xam day amul laale ak sunu borom tabaraka wa taala daaru salaam daarul mannaan da tuuba daarul quddus daarul rahman daarul alimul xabir al buqa al mubaraka muy dem rek dëkk yi mu sanc yépp dangay gis ne tur wi ba koy tànnal day doon tur wu amul laale ak suñu borom tabaraka ko taala du yem ci loolu dëkk bu mu mas a sanc boo gisee jàkk la fay njëkk def Cheikh Abdoul Khoudoss Mbacké ko wax te du ca yem jàkka mooy nekk digg digg dëkk ba xam ngeen ne dëkki tubaab yi ñoom yi ak place yi nga xam ne yooyu mooy doon seen digg dëkk waaye Sëriñ Tuubaa am ji mooy doon digg dëkk ba yëmu ci loolu Sëriñ Tuubaa dëkk yi mu sanc yëpp dangay gis ne day am bërëb bu ñu jàngee alxuraan ak bu ñu jàngee xam-xam ak boo xam ne dongay tërbiyee ñoo fay ne di xidma ak foo xam ne dañ fay dalali gan ba ci kër gi itam noonu la ko doon noonu la ko doon séddalee day am bërëb bu góor ñee ne ak fu jigéen ñee ne ak fu dongay tërbiyee ne ak fu muy daje ak mbokki taalibe yi kon aw nam aw nam ci sancub dëkk loolu njàngale mu rëy mi ngi ci bu dee bis yi ñuy def itam muy ay xew yooyu itam jàngale na ci bàyyiwu ko ndax ci gàmmu ak ni mu ko doon defee mën nañ cee jàngee ni ñuy doxale sunu bisi xew yi yépp danaa wax ne taxdimuhu bi sunnati yaquduna lil janati mooy nañ ko defee moom xew bi nañ ko teg lépp ci kaw sunna si yonte bi salaam moom nag da ko jëmmal na mu ko doon defee mooy gàmm bu ma saa jot def mooy jàng alxuraan ak tudd yàlla ak jullu ci yonte bi alei salaam ak jàng ci lenn ci ay xasidaam mel ne muqaddamaat ak jës bu ak bu ak ba mawlidul barzan ji boobu ak yu ñu demee ak def ay berne yu bari di ko jox mbokki taalibe ya fa daje loolu yi mas ko jànge ci xew yi nga xam ne moom la murid yi xew loolu ci gàttal rek mooy li nga xam ne ci laa doon jéem a jaar ci luy firndeel jox leen ab xar kanam ci li ñuy tudde njàngaleem Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne kenn ku ne day wax ci noonu ne war nañ caa dellu muy loo xam ne itam fi may jeexale mooy gàllankoor bi gën a rëy ci suñ diggante jëmmal ko ak jëfandikoo ko mooy lenn rek laa jàpp mooy réer ak ñàkk koo xam kon suñu ko bëggee suñu bëggee delluwaat ci njàng ma faw ñu def yitte ci xamaat bëggug sëriñ bi te lépp sëñ bi bind na ko itam loolu kenn ku ne murit bu ne foo mën a ne mën ngaa fexe ba gëstu la la soxal ci njàngaleem sëñ bi nga jéem koo xam bu ko dee mbooloo mur yi bu ñàkk itam am na ñu leen jiite ña leen jiite itam seen yitte moo doon war a doon jàngale njàngaleem sëñ boobee ak yee ci nit ñi ñu xam ne itam njàngale mii ma wax ni am na ay nit yu sëñ bi yaraloon boppam yu ci jaaroon ba gis njariñ la ndax moom rek mooy gaalu mucc moom rek moo nu mën a mooy mucc mucc gi mi ci njàngale moomee ñu delloo ci loolee mën nañ cee tudd borom bis bii tey ki njëkk di màggal màggal gi muy Cheikh Mouhamadul Moustapha ak kiñ ko tudde tey Cheikh Ibrahima Fati ak mag ñu bare bari sëñ bi jaaral na leen ca ñu jaar ca gis njariñul jaar ci yoon woowee nga xam ne moom la sëñ bi doon woote loolu nag dinaa wax ne lu mu la jege-jege moom sëñ Tuubaa lu mu la jege-jege su fekkee ne jéemoo jëfandikoo li muy digleeg li muy tere ni njàngale mi boo ko jéemut a jëfandikoo boo ko jéemut a jëmmal ci sa dund doo jariñu mukk law kilta alfay ritli xamrin lam takun li tasira naswaanan ida lam tashrabi boo dajoon junni liitar sàngara teg ko sa wet boo ci musut doo màndi sim si njuwaay itam noonu la boo ko jéemuta jëmmal ci sa dund njàngalem mi lu mu yàgg-yàgg itam coono rek ngay am waaye doo doo doo jariñu ci moom moo tax sëñ mbay jaxate daa wax ne bul jay sa bopp bu ko nax xamal ni kat déefu la jox